guddik ajuma jàpp samedi 4 avril lañu fekk Iba Thiam mu daldi faatu ci ab appartement meublé bu nekk foofee ca Almadi mbir moomee mu ngi xew ginnaaw ba moom ak ay xaritam organisé woon ab soirée privée naam sax ñi ngi xaar résultat autopsie bi génn tey ji ci altini ji waaye bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay témoignage kii di Iba mu ngi faatu ginnaaw bi mu defee ab overdose loolee nag li koy firndeel moo di dañ ko fekk mu daldi wàccu deret ju bëri laata muy faatu li ci gën a doy gën cee choquant moo di ñam fa nekkandoo woon ñëpp dañoo daw ba mu des kenn kuy wuyoo ci turu Jaja Caam di ab serveur ca hôtel Pullman kookee sax moo ko mujjee assisté laata muy faatu leneen tamit lu ci gën a doy waar te ñu naqarlu ko moo di ci jamono jo nga xamante ni kii di Iba Caam mu ngi am mettit am na ab beneen couple bu nekkoon ci wetam nekkoon ci la leen neex ba tax ñëwuñu ñu si ko ca noonee nag la kii di Iba Caam daal di ñàkk bi ay une heure matin jotee kan mooy Iba Thiam di xale bu jigéen bi ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo ci suñuy information moom jot na nekk directrice administrative et financière ci entreprise bi di ACT Africa Group mu nekk ab société boo xamante ni day yëngatu ci wàllum intermédiation financière ak marketing nekk foofee ca point E loolee nag li koy firndeel moo di entreprise bi sax amal nañ ab tweet ci réseau sociale bi di Twitter dal di xamle génn ko rectrice moom Hiba nag jot na am master ci wàllum finance ca EM Lyon di ab école buy jàngale management te féete foofe ca réewum France Hiba Thiam nag mu ngi juddoo ca réewum Maroc jotoon na am ab nationalité française mu xawoon ràññeeku loolu ci réseau social bii di Twitter Hiba Thiam ci atub décembre 2010 ci la ubbi compte Facebook am bu njëkk waaye nag fi mu gënoon a fés mooy ci réseau social bi di Instagram ca boobule réseau sax daan na ca dugal ay photom yu bari yu ci mel ni ay photo yu mu nekkee voyage ca biti réew fu ci mel ni Paris Bordeaux Manhattan Miami Égypte balanca Turquie ak sax ay bërëb yu bakkane maanaam ay hôtel yoo xamante ni ñu ngi fii ci Dakar ak hôtel yu nekk ca Abidjan waaye tamit daan na fësal bu baax ay photo yoo xamante ni da cay dawal ay hélico wala sax ay avion mu mel ni Iba Thiam nekkoon na jigéen bu feex loolu ci àddunaam lum ci mën di doon Tactic TV dina leen toppal mbir mi nga xamante ni naar na indi polémique bu rëy ndax kat ay avocat yu bëri ku ci mel ni maître Toum Diagne si lekkale door li Bamba Cissé ñoom ñëpp jot nañoo constitué wu